bon li am démb moom metti na ma lool bi ma fekk ci yoonu Touba metti na ma ndax benn ni ko soxna Adja waxee sànq njëriñ la woon ci fonction yoo xam ne moom ci jiitu waaye ñaareel bi itam Hadjibou Soumaré sama xarit ndax Hadjibou Soumaré dañ koy faral di fàtte waaye mas na jiite banque nay jiite banque kon bi ma déggee xibaar yi mu metti lool ci man ma daal di jiital dara lan mooy mën a tax ba mu génn ci lii ndax loolu la ñu war a jiital balaa di seet ndax eh, wax waroon na wax warutoon na wax et li may jiital mooy eh, waxuma ko nag mu jëm ci moom muy homme politique muy nit di nga wax ba juum man mi di wax ak yow mas na ma dal mas naa toog Euh, front de résistance nationale jàpp ne may euh, porte-parole du jour ñu toog boobu amoon na manifestation am ku toogoon sama wet ne ah mhm. am na benn xale bu faatu ci hôpital na nga ko xamal nit yi boobu sax man jeexaloon naa sama intervention mhm. ma jëlaat micro bi ne ah am na lu metti loo xam ne ñu ngi ñu koy xamal mhm. lii la fekk loolu amul waaye bi ñu xamee ne loolu amul ma daal di dellu ginnaaw nag dama jum kon te loolu boo ko seetee ci réew bu nekk homme politique dina juum femme politique dina juum daal di présenter excuse loolu moom dañ koy soog a euh, dañ ko war a nangu muy muy nangu bu njëkk ñaareel ba euh, na na dëgg rek wax na dëgg rek tax ñuy wax question mën na yóbbaale saaga question mën na yóbbaale lu metti boo dajee woon tey ak mbëru làmb bu def cent vingt kilo nga laaj ko question bu nii mel ne ko waaw yow ndax sa baay moo la jur saaga ko walla saagawuloo ko kon juumte mën na jóge ci loo xam ne ni question ndong la yow nga jàpp ne xëy na mën nga ko wax waaye rëcc na la dem na kon mën nañ ko topp ci loolu bu ma jëlee bu ma waxee mbër exemple mbër dama di wax ku am doole te soxor te moom la jàkkaar lool kon foog nga prudent xam ni ngay wax xam na naka nga koy waxee. kon nga jàpp ne le PM Hadjibou dafa juum. Euh, waxuma ne xaw ma ndax dafa juum am na déetul waaye ndegam ñi ngi koy topp ci loolu te mën na ko sonal te am na par responsabilité ndax moo tax it man bind naa ci poste il a peut-être fait une erreur man de ci dëgg-dëgg bu doon man donc. mooy sa mooy sa tweet bi nga xamante ne sa en fait bi nga xamante ne def nga ko. voilà ma ne léegi lii am na mais ju juumte la man di ci sama yaakaar mënoon na ko bind neneen waaye ni ñu ko bindee ak xëy na xolam ak xarañam ah c'est pas na bañ a ne <coughs> kon loolu bu amee nga ne li ma bind wees na li ma doon xalaat maa ngi koy rëccu loolu doy na mm-hmm. yëpp ne lépp sedd maa ngi doon xalaat mën a mais ndax mënuñu uti ji benn xalifa boo xam ne dina ko indi ci mu nangu loolu ba noppi waxtaan ak euh, waa waa waa ndax ndax nag ci dëgg-dëgg bu fekkee ne jóg na ba nangu loolu kaw rek waaw dafa am lu ma dégg xëy na wala ma njoxtu ko waaye li ma ci bind ni ma ko bindee wees na sama ba jëm ci jox ay montant bu boobaa jàmm na ñooy. d'accord kon yow daal noonu